asalaamaaleykum wa rahmatullah amin tournut chers téléspectateurs yéen ñi nga xamante ne ñuy safo di ñu seetaan ci euh, waxtu wile waaye tey jii dañoo xaw a poussé ni mbir mi indi ko fii ci rajo bi muy euh, Leral FM di kontaan bu baax a baax chers auditeurs merci de nous avoir suivis à fois ci seen émission Yoor Yoor muy émission boo xam ne day daal di amandi ci télé bi ak ci rajo bi bu soobee yàlla ndax groupe Leral lañ daal di wax muy rajo di télé di itamit li nga xamante ne moom mooy site internet gi ni mel tey jii itamit émission Yoor Yoor ñu daal di allahu rabbi ci euh, rajo bile ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy ngëneelu koor yi tamit waaye tamit daal di xëcc ci li nga xamante ne moom la ñu daal di amandi tey jii ñu am oustaz Moustapha Sarr mi nga xamante ne xàmme nañ ko bu baax muy borom xam-xam itamit bi ngeen daal di ràññee ci plateau yi le ñu bari itamit di ko daal di invité bi yoon du njël benn yoonam ñu koy daal di nuyu salaamaaleykum yaa oustaz. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajmain ah, yi ànd ak ah, groupe leeral tv ak leeral fm yëpp ak fm yëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di ñaan yal na yàlla dolli jàmm ak barke weeru bi ñu nekk ci cat biit yal na ko yàlla mottale jàmm mboolem li waa di ñaan yàlla nangu ko may ñu ñuy fekke weeru koor yu bëri bëri di la nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem ñi nga xam ne it dañuy topp sa émission di nuyu technicien bi di kontaan bu baax a baax di la dalal yow Oustaz nee naa la euh, saa yu ma la invité da ngay daal di bàyyi sa yitte daal di ñëw te loolu lu ma neex la wallahi la azim te dama koy wax waaye lu ma gën a neex saa yu ma affiché sa photo di naan yow laay daal di invité am na ay taalibe yu gën a bëri yaa Oustaz dañuy di woote ne en kon tey macha allah sama Oustaz nga daal di invité kon Oustaz ñi nga tàggat bëri na ah, Oustaz Daouda euh, euh, fii fii la nekk ci kër gi mhm. moom ci boppam yow yaa ko jàngal def eh, sakket la waxoon. après am benn borom kër bu la woo jox la këram. kooku moom yaa ko jàngal macha allah kon xam naa ci loolu tey ji li ñuy na xamante ne moom mooy euh, ay muuru koor parce que am na ñu xam ne yaa oustaz xamuñu lan moo leen euh, lan moo leen war ca loola hmm. julli iid gi koo xamante ne julli gi ban heure lañ koy def bi hmm. yan farata lañ ci war a def est-ce que muuru koor gi dañ koy daal di génne avant ak après leeral yooyu yëpp yaa axi hmm. comme que am na ñoo xamante ne incha allah suba bu soobee yàlla dañuy daal di julli am na ñeneen ñoo xam ne itamit gannaaw suba allah lañ daal di julli ala kulli haal yàlla ñu daal di nangul loolu moo nekk importance bi waaye vous pouvez nous léegi-léegi dinaa ko affiché hmm. wala sax ma rappeler le numéro de téléphone hmm. euh, donc dinaa ko dinaa ko affiché léegi-léegi wala ma rappele ko tout de suite pour ñi nga xamante ne dañoo bëgg a participer ci émission bi ni mel ñu daal di ñëw participer di directement alors yaa oustaz tafaddal bëgg naa nga ñëwal ma surtout ci euh, mudd koor gi que ñun moom xam nga tey moom dañoo xaw a poñe baaba ay dara tuuti te yaa te yaa un journal qui se passe à midi. Hmm. dama bëggoon nga ñëwal ma ci euh, mudd koor yi. Hmm. lépp lu waa réew mi ñaan yàlla na ko yàlla nangu. amiin ah, yi hmm. gannaaw loolu. xam nga leen xadr bu rombe rek comme ni nga toppalee lii bi. azakay murum koor mooy nekk sa kanam. d'accord azakay murum koor borom xamam yi léeg-léeg ñu tuddee ko zakatul fitr mooy azaka boo xam ne lii cause bi. mooy jóge koor moo ko waral doo doo azaka alal bokkul ak azaka be waa bokkul ak azaka alal moo tax ñu koy wut tuddee sax muru koor muru koor waaw nga xam ne cause bi mooy koor d'accord mooy dafa am lii ak koor mhm. si koor lañ koy joxe aussi mhm. kon moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko waral si bépp jullit képp kuy jullit rek première condition bi moom mooy ki koy génnee day nekk jullit te it jullit la koy jox mooy premier condition bi mhm. ñaareel bi mhm. ki koy génnee day fekk bisu korite yaakaar ne bis boobu dina am lu mu dundee moom ak njabootam pilis si pilis boobu nag su amee lu mu génnee mu door a génne mais d'abord mu am ba pare waaw mu am mu wóor ko ne moom jouru julli bi dina am lu mu dundee parce que bu amee bu amul lu mu dunde te yaakaaru am dina am lu mu dundee boo moom génn génnee lii bi waru ko parce que kooku daa nekk situation ñetteel bi na fekk su koy génnee na ko wóor na ne moom dina am dina dund xaaj ci koor gi ak genwal ci kori bi loolu moo tax ci lislaam dina dagan nit ki génnee ko lu jiitu lii di korité ñaari fan wala fan wala mais jouru korité bi moom day nekk obligation si ko war a génn par exemple man mii bu ma bu ma man bu ma ko amee tey jii mën naa ko génne waaw wala suba wala suba waaw mais en tout cas bu mu paasee bésu bésu julli bi heure bi imam di di julli moom fi mu yëgee minbar boobaa foofu la jeex foofu la jeexe loo génnee ci rek nekkatul azakay morom ko mais sarax simple boobaa duñ la bindal tiyaaba ku génne azakay morom ko kon yonent bi salaa sallam abdullah ibn omar mhm. moom mooy yonent bi salaa faratal na azakay morom koor mhm. si góor ak jigéen mag ak ndaw jaam ak gor waaye nag ñooñu ñëpp nañu bokk ci jullit yi mhm. léegi nag yonent bi salaa sallam digle nañ ko génnee jiitu ñuy dem jullikaay ba abdullah ibn abbas moom it mu ñëw nettali azakay morom kor benn farata yoon salaa moo ko faratal mhm. ñaareel mu woo cause yi tax ñu koy génne mu lim si ñaar mhm. mu ne benn bi tomatan benn mu ne tohratan li saaimi min al lagwi wa rafas mhm. azakay morom kor boobu ling nga siy mooy day laabal ki doon woor si yenn kàddu yi mu doon wax mhm. walla yenn jëf yi mu doon jëf yoo xam ne yooyu àndul woon ak koor mhm. wala yoo xam ne moom sentirul def na ko mais bu génnee azakay morom koor rek yàlla subhanahu wa taala yooyu yëpp da koy effacé maanaam muur koor dafa mel ni gàkk-gàkk yi nga amoon ci koor gi moo koy effacé waaw loolu mooy toxra baatu taxara day ñëw laabal nit da koy setal si yenn erreur yoo xam ne wala gàkk-gàkk yoo xam ne toppoon na ko wala raxoon na si koor te warul woon ànd koor gi macha allah ñaareel bi mu nekk toomatan lil masakin mhm. mu nekk ñam bu ñuy jox ñu ñàq lool moo tax azakay moroom koor mhm. kenn du ko jox ku nekk mhm. moo tax ngir imam malik ak cheikh lislam ibnu taymiya nee nañ ñaar dong la ñuy jox azakay morom koor parce que xadisuloo masakin miskin buñ ko tuddee day yóbbaale faqir léegi li leen différencier faqiir mooy koo xam ne amul dara mm-hmm. amul te mënul laaj mm-hmm. kooku la ñuy tuddee faqiir mais miskin mooy koo xam ne am na te mun na laaj mm-hmm. te aajoona parce que boo xoolee suratul kahf yàlla bi muy melal miskin yooyu dafa ne wa amma safinatu fa kaanat lil masakina yaamaluuna fi l bahr nee na gaal gi ñu ko moom ay miskin nañ te dañuy liggéey kon kuy liggéey kooku am na loo am looy fortaatu mm-hmm. kooku lañu miskin mm-hmm. miskin mooy koo xam ne am na waaye li mu am doyul faqiir na mooy koo xam ne amul te munul laaj moo tax ñaar ñooñu la charia wax nañ leen jox pour lu tax bisu kori bi du ñu yelwaan moo tax ñoom ñaar sa bu ñu jotee buñ leen teelee jox lu ñu dundee jour boobu lislaam day tere ñu ñu yelwaan parce que am nañ lu tax foofu obligation la si nit ki balaa muy julli ji mu génnee ko kon azakay murum koor boobu mën na nekk deux kilos cinq cent muy ci la bopp bu nekk maanaam bopp bu nekk li ëpp uh-huh. si li ñi li nit ñi di dundee bu fekkee par exemple ceeb la waaw léegi kon deux kilos cinq cent ceeb ngay génnee génne waaw boo ko defee trois kilos na mu gën a mat d'accord nga xam ne buuña nga defal waa ki ngay jox mais minimum minimum deux kilos cinq cent deux kilos cinq cent d'accord wala yenn borom yi nee nañ mën nga ko xayma si xaalis d'accord par exemple tey huit cent boo ko jeyee dina baax mais mille francs moom ëpp na te baax na bopp bu nekk mën nga ko génneel mille francs mille francs d'accord yow mën nga génnee sa bopp hmm. génnee sa soxna njaboot yi nga xam ne seen dund si yow la aju nga génneel leen. comme maanaam man man sama soxna mën naa ko génneel 1000 francs sama doom 1000 francs waaw man 1000 francs ma génnee ko asaka muuru koor. waaw ñoom génneel naa leen. waaw waaw kon. bu fekkee tamit ceeb lay doon. waaw man 3 kilos moom 3 kilos kee 3 kilos. muy 9 kilo waaw mu leer bu ma ko bëggee xayma ci xaalis muy noona muy noon d'accord. noonu la ñuy génne as yow sa gën nga ko leeral noonu la ñuy parce que ñu bëri dañuy jaaxle yenn saa yi. nan lañ koy génnee ak kuñ koy jox kiñ koy jox mooy koo jàpp kii daal aajoonam mën nga ko jox soo ko mënul jox mhm. am na commission si yi am si jàq yi nga teel ko génne ñoom it ñu teel ko joxe mhm. ñoom it waruñu ko stoppé foofu mhm. ba ñu ko ñu koy aajoo dem di laaj yi dañ leen ko war a jox ñoom ñu dem feetu parce que jour boobu lépp luy wàññi maanaam métit wala toroxtaan jour julli bëgguñu ko dañu bëgg ñëpp bëgg ñëpp bëgg maanaam ñi ñàq sa ñoo war a gën a bëgg ñi am. allahu akbar ba ñi am ne waa lu xew tey. <laughs> ñu ne tey feet. jullit yi ñooy feet. macha ñu ne waa ji moo doon sol yére bu mel ne tey tey li mu sol moo dàq li ma sol. macha allah pour dugal feet la. parce que dañu war a feeñal. bis bii bisu feet la. ñoo jóge si jaamu yàlla bu mag muy koor. Mhm. léegi dañuy feetu. feetu am tiyaaba aussi. <laughs> maanaam fête bi ku la ko gën a fësal. d'accord moo la ëpp teew. d'accord d'accord loolu moom mooy li jëm si wàlla azakay morom koor. morom koor alors ma ma ma dernière question. et je pense que moom la ñuy tàggatoo parce que gis nga kay taxaw nañ. alors ci julli bi. waa lu ñu jëriñoo. bu ñuy dem yoon yi ñuy demee bu ñuy ñibbi si mun nañ jël beneen yoon. maanaam man bu ma bu ma awee yoon bi pour dem jumaa ja bu may ñibbi naa. jaar beneen yoon jël beneen yoon. lu waral loolu la. loolu yëpp yonent salaa salaam moom moo ko jàngale bu njëkk. d'accord ñeneen ñu ngi wax jamono yooyu jullit yi ñoo néew yu mel noonu yenn borom ñu ne déedéet jëmmi def ko rek dañ la si bindal tiyaab allahu akbar même boo xamee cause yi wala boo xamul cause balaa ngay dem aussi si jullikaay jour it da nga war a lekk wane na yow wooro parce que julli kuy julli ji waroo waroo woor mhm. da nga war a wane ne dog nga yoon salaa salaam tàndarma la doon lekk. macha allah donte ñun fii laax la ñuy gën a. laax laax laax ci matin waa <laughs> waaw mais njëkkal tàndarma bi. d'accord léegi gannaaw loolu ngay dem booy dem di kabaar. Mhm. soo demee ba jullikaay ba. su mhm. fekkee bayaal la ñu am ñu jullee foofu moo gën. su ngant amee lu mel ni taw wala amuñu bayal bu boobaa mun nañ jullee si jàq. ku dugg si jàq yi foofu da ngay dawal ñaar mhm. mais bu nekkee si bayal foofu doo dawal ñaar raak da ngay ñëw toog di sàbbal. ñu bari nag bu ñu daal di ñëwee ci bayal. dañuy daal di julli ñaari rakk kon kenn du ko def julli waaw da war a sàbba da nga war a ñëw rek toog toog di sàbba mais bu fekkee ni ci jàkk la wala ci juma da nga war a julli ñaari rakk ngir nuyoo ko jàkk ji d'accord loolu àq jàkk la maanaam teggi ni nga am ak jàkk mooy jiita ñaar rakk d'accord gannaaw loolu imam bu ñëwee kenn du liqaam kenn du nodd imam day ñëw rek defar sàppe bi léegi mu julli ñaar rakk ni mu koy jullee hmm. rakk bu njëkk bi bu kàbbaaree kàbbaaru armal day kabar gannaaw loolu juróom ñaari kàbbaar muy set muy set mhm. boo boolee yëpp muy wét d'accord léegi mu jàng fatiha su koy jàng si kaw la koy jàng d'accord su ko su jeexalee fatiha su mu nee sabbih isma rabbika laalaa mu teg ko si mhm. su mu nee suratul qaaf yi mun na ko def parce que ñaari yëpp yonent bi daan na ko def gannaaw loolu mu dem jeexal premier rakk bi bu jógee jóg boobu muy jóg day jógaale kabar mhm. gannaaw la mu tegaat si cinq kabar mooy six d'accord léegi mu jàng fatiha mhm. teg si hal ataaka hadisul ghashiya mhm. wala suratu ah, qamar su mënul yooyu nag lu mu mën a jàng si alquran après fatiha jeex na su sëlmalee li muy njëkk a def mooy mu jóg xutba yëkkati discours boo xam ne dina wax fi jamono toll ak fi nit ñi di jëm yooyu yëpp normalement imam bi da ko war a jox donte ay grande ligne dénk nit ñi maanaam bu ñu paree nit ñi saafuwante ak imam bu ñu paree aussi loolu mooy it bi ñu baalwante ah macha allah oustaz kontaan naa waaw waxtu bee ma xoj waaye wallahi bëggoon naa mu gën a yaatu lan ngay tàggatoo ah waa dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla yooyu ñu ngi lay <laughs> sant si occasion bi ñu may nii parce que ñu bare bare même avant may ñëw dañuy laaj si wàllum ruum quoi. wallaahi ñenn ñi sax maa ngi dañ ma invité boo leen dégluwee. di incha allah dinañ ko déglu loolu it occasion bi vraiment ñu ngi leen di di ñaanal télévision bi ak rajo bi. amiin yal na leen yàlla yokk. yokk bu bu yaatu sax. vraiment ñu ngi santaat yàlla. vraiment di. di nuyu Oustaz Ibrahima <laughs> <laughs> sama Oustaz. dina ko dégg ak Ali ak Saa surtout surtout. invité sama Oustaz invité sama Oustaz. waaw vraiment ah d'accord na ñëw mu tëjal ma koor gi. waaw wax dëgg yàlla <laughs> sama waay la quoi. macha allah am na am na solo am na solo Oustaz jazakumullahu xayran merci ah. à chers auditeurs à ah. chers téléspectateurs je peux dire ça parce qu'actuellement on est en direct sur Facebook. ñi ngi jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi doon teewlu boobu ba tey merci à tout un chacun de vous man maa jàpp li nga xamante ne moom mooy numéro téléphone bi nag ndax temps bi ñu accordé moo xaw a xat D'ici là, prenez soin de vous. Dans un instant, on va vous présenter le journal avec euh, Cher Diop, Inch'Allah. Merci beaucoup.